salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw euh, mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant euh, surtout de di di président Dianté pour la confiance parce que je considère que la personne la mieux indiquée peut-être pour aborder ce sujet ce serait peut-être euh, l'honorable député Ayib Daffé wala Ngagne Demba Touré qui malheureusement est exilé. qui est mieux placé pour aborder cette question parce que ñoom ñoo fi nekkoon depuis toujours et ñoom ñoo porté combat bi depuis toujours vraiment donc c'est pour wax leen rek que damay gërëm assistance bi ci confiance bi Et aussi euh, analyse bi c'est pas l'analyse d'un spécialiste moi je suis juriste <laughs> mais je suis privatiste donc euh, pour ngeen comprendre s'il y a des incohérences dama buggoon juste soulever quelque incohérences par rapport a cette décision du conseil constitutionnel et boo leen xoolee euh, première liste rejet bi et le président Ousmane Sonko dafa bokk si ñu ñu njëkk a lu tax ñu ne parce que moom dossier am matul lu tax matul parce que dafa amul quittance euh, caisse de dépôt et de consignation te ñun ñëpp gis nañu dans quelles conditions la ko amul et même juge yi ñoo rendraat encore une autre liste beneen euh, beneen décision de rejet bu ñu defee recours ba pare ñu wax ne que effectivement que le fait que le président Ousmane Sonko amul quittance du fautam fautu administration bi la donc son dossier est complet les mêmes juges alors que ñoom waxoon nañ ne au début que ils avaient examiné le dossier au fond c'est-à-dire dans le fond c'est-à-dire xooloon nañu dossier bi yëpp donc ñoom bu ñuy ñee xool au début gisuñu loolu donc il fa il a fallu que ñu def recours ba pare boobu la ñu dem gis donc c'est c'est extrêmement grave en fait lu mel ni candidature élection présidentielle nga jël dossier candidat nga traité que de manière aussi légère waaw euh, beneen aspect bi boo xoolee bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu en fait quand ils ont ils ont rejeté le dossier parce que le dossier n'est pas complet ñu ñëwaat beneen aspect ñu ne léegi que malgré que le dossier soit complet léegi le président Ousmane ko ba léegi mënul nekk candidat lu tax parce que ñoom jàpp nañ ne Ousmane ko dañu ko condamné te si condamnation boobu ñoom dañoo wax ne que Cour suprême moo leen transmettre dossier bi est-ce que vous avez compris donc li day wone ne que ñun ñëpp lu ñu doon xalaat depuis toujours dëgg la boo xoolee. man mii di wax ak yéen actuellement man j'ai un procès en diffamation depuis le mois de mars passé ba léegi mënuma am une seule décision même en première instance donc ñu accélérer un dossier en une année ñu jeexal ko ba pare par je ne sais pas hasard la wala conseil constitutionnel ñu dem la même personne ñu ne lii moo tax ñu valider te ñu ne conseil ñu ne cour suprême si boppam moo leen yoon yónni dossier euh, euh, dossier bi te da ngay xam ne décision boobu mais bu bu ñu waxee ne. am na benn décision bu ko condamné génnee ko si si si si euh, euh, euh, basé ko si article nee nañ article trente. waaw L trente du code électoral lañ ko basé te boo xoolee article L trente bi. L cent trente oui L cent trente. non L trente. L waxul ne il inéligible article L trente day wax ne que ne doit pas figurer sur les listes te boo figuré wul ci liste bi loolu pour loolu procédure la laajte il faut mu am une procédure administrative boo xam ne dañu fa war a jaar ñu notifier ko bu buggee mu attaquer décision bi mais en l'espèce on ne lui permis parce que le délai était réduit ba pare conseil constitutionnel dafa dem ñoom ñuy autosaisir directement c'est-à-dire ñoom débat yi ñuy def ci télé yi mooy partisan Macky Sall yi lu ñuy wax ci télé yi ñoom en fait wax sa xalaat lañu def dans une décision du conseil te loolu c'est extrêmement grave xam nga genre décision yi. pour euh, mag ñi amul problème parce que ñoom pare nañu man tout le temps damay wax sénégalais yi nañuy raisonner en termes d'avenir man bu am 30 ans aujourd'hui man dinaa dund ba peut-être que sama doom mën mës a nekk candidat aux élections présidentielles su boobaa mun nañu sukkandiku si lu mel nii ñu génnee ko si ay liste sénégalais wul bu ne noonu la war a xalaatee moo tax damay woo sénégalais yi ma ne leen. Eh, il faut vous préparer xam nga. Euh, man j'étais am na fu mbir di toll il faut se préparer gis nga lii c'est un problème de génération c'est un problème d'avenir ñu ko war a jaral moi je considère bu fekkee ñoom gagné nañu élection yi gagné nañu ko y a pas de souci moi je suis démocrate mais il faut que les sénégalais se préparent à sécuriser leur sécurité c'est-à-dire que ñoom ñu taxaw bu leen jaralee dee ñu dee y a bu ñu jaralee kaso ñu dem kaso dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko moom dëkk bi du pour benn nit voilà ça je vous le di te loolu eh, bu fekkee ne jaralul sénégalais xam nga yàlla nee na dëkk bu ne façon dirigeant bu mu mérité la koy jox bu fekkee ne ñun nangu nañu ne que nit ñi jaay ñu doole eh, teg ñu si coono. injustice depuis des années ñu nangu ko y' a mun nañ ko nangu man j'ai une capacité de résilience extraordinaire mais nag damay woo sénégalais yi wax leen ne il faut vous préparer il faut vous préparer je ne demande pas à ce que ñu confisquer élection yi wala ñu imposer leen suñu volonté mais il faut vous préparer si quelque veut vous imposer une volonté vous devez vous préparer à protéger la justice et le droit parce que tey bu fekkee boo gisee ni man ak ni ma toll nii aw ma doole may dox ci mbedd bi kenn dóoruma c'est parce que y' a un y' a une loi y' un règlement bu fekkee ni dem nañu ba loolu respecté wuñu ko amatul fii wax kii républicain la kii lii la mais on est obligé parce que lu ñu yoon may ak yàlla loolu la ñu doxee voilà moi pense que c' est, est important que ma préciser loolu euh, maa ngi jégalu xaw naa gudd tuuti. merci capitaine merci capitaine je crois que les merci pour les éclairages. Euh, nous appelons euh, l'allié Massokhna Kane. pas lui dire maître, c'est l'allié. <laughs> L'allié Massokhna Kane, va placer, un mot et après euh, on donnera la parole euh, au président Birame Souleye pour livrer le message du des leaders alliés du candidat Ousmane Moustapha Hello. Ça va bien? Alors, allez-y. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour ou bonsoir. je peux dire que je suis très fier de notre presse, parce que c'est vraiment impressionnant. On voit que vous prenez vraiment votre métier au sérieux et que vous êtes toujours au front, comme nous les acteurs politiques. Ce n'est pas aujourd'hui Maître Massokhna Kane qui est devant vous, avocat, mais c'est Massokhna Kane chef de parti Union des forces patriotiques qui est là devant vous aujourd'hui. Je ne vais pas, mais je veux juste faire quelques observations. Ce pays nous appartient à nous tous. plutôt appartient à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est en jeu aujourd'hui, avec ces élections. Les citoyens ont choisir ceux qui vont diriger ce pays, qui vont avoir le pouvoir de nomination, qui vont avoir l'argent du pays, qui vont décider de tout ce qui va se passer dans ce pays. C'est important de savoir qui est-ce qu'on va choisir. En tout état de cause, si on fait le bilan des cinq ou des dix dernières années, force est de reconnaître que c'est catastrophique pour la vie des populations. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Vous prenez euh, les denrées de première nécessité, elles sont beaucoup plus chères. de moins en moins, ça devient plus cher. L'eau, l'électricité, les soins médicaux, l'hospitalisation, je n'en parle pas, les soins médicaux, l'école, la justice, c'est partout le chaos, c'est partout la catastrophe, malgré tout ce qu'on vous dit comme bilan et tout ce qu'on vous montre comme image, réalisation. Feu Kebambaï disait déjà, il y a fort longtemps que les Sénégalais étaient fatigués. Si on devait comparer avec maintenant, je crois que, euh, les Sénégalais ont la chance d'être euh, résilients et résistants parce qu'ils ont foi. Ils ont foi en Dieu et ça, c'est une force. Croire est une force. Les Sénégalais croient. Mais croire ne veut pas dire baisser les bras. Il faut se battre. Il faut se battre. pour pouvoir, il faut se battre pour savoir, il faut se battre pour avoir. C'est ça la lutte, c'est la grande réalité de la vie. Il faut se battre pour savoir, pour pouvoir et pour avoir. C'est important. Donc, les Sénégalais doivent se battre pour choisir leurs dirigeants. Or, ce qui se passe, la menace actuelle, c'est qu'il y a des dirigeants qui peuvent être choisis, que certains Sénégalais veulent choisir, et on les empêche de le faire en écartant les candidatures. C'est extrêmement grave. Et ce n'est pas fondé. Si on prend la dernière décision du Conseil constitutionnel, je ne reviens pas dessus, mais tout le monde sait que c'est une commande politique qui a été exécutée. En tout cas, pour ce qui concerne Ousmane Sonko, C'est une commande politique qui a été renouvelée, réitérée, exécutée. Mais exécutée de façon pas très jolie. Parce que recevabilité des candidatures et y a eu la validité des candidatures. Lors de la, de la